ay ragal nekkuñu fa xëy na dañu nekk ci état xam ne ñu ngi ci état mm-hmm. am yu bëri yoo xam ne tey dañ koo jombale seen bopp mais c'est pas une raison quand pour que nit ñi di abuser quoi parce que song nañ fi cortège Abbas Fall mm-hmm. semaine ba le passé démb ñu songu cortège yu Ousmane Sonko gis nga boy après sax dañoo daw bàyyi fa seen moto te foofu ngay xame ne booyu Pastef yi wax dëgg fi yàlla ay booy ay nit yu jub lañ nit yi Pastef manaan ma naan parce que nit <laughs> yi Pastef ay nit yu jub lañ. parce que man yàgg naa di topp ay cortège mhm. gis nga bu xeex amaan dañuy sàccante ci seen biir. <laughs> te gis nga cortège bu Abbas Fall bi nee nañ dañoo sàcc seen ay téléphone mhm. sàcc seen ay yenn bagages yi. kon démb ñi àndoon ak Ousmane Sonko bu ñu nekkoon ay nit ñu jubadi. Mhm. danañu sàcc moto yi yóbbaale. dañu sàcc moto yi yóbbaale mais ba tey déggoo fa benn acte de vol. kon mooy wane nañ ñi ànd ak Ousmane Sonko ay ay nit yu responsable lañ ay nit yu jub lañ man nag lima ci métti mooy. keroog ba ñu taalee siège yu. taxaw taxaw ñenn ci société civile yi dañoo jógoon dénoncer yor télé yeeg rajo yi di mbel mbel yi di dénoncer waa ki nga xam ne nag moom waa Pastef ñu song seen cortége ba gaañ ci Malick gàkku ana société civile bi doon dénoncé barki démb violence wala ñoom seen dénonciation daal dafa am benn camp bu ñu ko juble ah da nga gis ne dafa am fu ñu fu ñuy. ah parce que man à ce man de gisagu ma man bu ma gisee kenn ku dénoncé. Mhm. te wax dëgg fa yàlla may rafetlu posture am mooy Anta Babacar Ngom. Mhm. ak Abdoul Mbaye gis naa mu koy. waaw Anta Babacar Ngom daal nee na suite à l' contre le convoi du président Ousmane Sonko à Koungheul. Je tiens à exprimer toute ma compassion aux blessés et à leurs proches. Mmh. Je condamne fermement la violence d'où qu'elle vienne et appelle chacun à la retenue et à la sérénité. Ensemble, bâtissons un espace politique apaisé au service de la paix et de la démocratie. moom de moom laa gis. ak Abdoul Mbaye aussi gis naa postam aussi Abdoul Mbaye bu amee it. Mm-hmm. gis naa ko su ma rafetlu naa ko donte mm-hmm. gisaguma ko mais rafetlu naa ko mais damay wax ne rek gis nga euh, société civile. lañ leen doon wax rek la ma loon doon wax rek. Mm-hmm. su ma waxee nag nit ñi duñ ci d'accord ak man mais gis nga dafa am société civile boo xam ne c'est des opposants encagoulés parce que man mënu ma comprendre nga condamné barki démb. Mm-hmm. attaque bi ñu def taxaw. tey démb ñu attaqué cortège yu Ousmane Sonko ñam ñëpp ñu ne muq mu xaaral cest à que il faut que nit ñi les masques vont tomber gis nga les masques vont tomber. mais damay waxaat une fois encore dégg naa sax am na si ay ñoo xam ne ñu ngi xaw a xaw a am njaqare tuuti ci sécurité. Ouais. Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais dama ne gis nga passif amuñu problème de sécurité. waaw sànq dégg naa Falilou Keita doon ko wax ni. non ñoom sécurité euh, Ousmane Sonko est bien protégé parce que sécurité am bañ nak ba yenn yu ci bëre sax duñ ko dévoiler. waaw am nañ sécurité am nañ sécurité te bu leen neexoon tey ñu jël ay ay agent bi ay agent GIGN wala BIP. ñu ànd ak ñoom parce que son Sonko donte président Pastef la ba fii muy nekk nii di campagne c'est c'est le premier ministre c'est le premier ministre dara empêché wu ko tey ci biir campagne bi mu am ay dossiers yoo xam ne moom la concerné mu ñëwaat Dakar gérer ko continuer c'est le premier ministre le premier ministre am na am na am na sañ-sañu wala yoon loi may na ko mu am ñu koy ñu koy protéger mais bëgg def différence rek entre bu nekkee ci activité état ak bu nekkee ci activité politique am muy Ousmane Sonko en en en tant que premier ministre ak Ousmane Sonko en tant en tant que leader politique. Mm-hmm. mais bu ko neexoon tey mu jël waa sécurité état bi ñu ànd ak moom parce que en même temps président la mais en même temps premier ministre la. te gis nañ fi ci jamono yi régime yi ci passé <laughs> mais candidat yi nga xam ne moo xam Macky Sall présidentiel moo xam moo xam. ci yeneen yeneen activité politique <laughs> mais garde rapproché bi dañ koy dañuy ànd ak moom yu état yi donc ñoom ils ont voulu ils dans le politiquement correct mmh. mais malheureusement ñi ñu ko seexal nekkuñu ci loolu parce que démb boo xoolee bi attaque bi amee on a identifié oto bi nga xam ne moom moo defoon ñu doon attaqué gis nañ ci photo responsable politique ba ca nekk mm. kon tey du ñu fi nekk di laam laame naan ñan laa kan la xam nañ camp bi ko def xam nañ camp bi ko def donc moi je souhaite vivement que police ñu gaaw wala gendarmerie ñu gaaw diligenté affaire boobu te ñu wax nit ñi surtout les jeunes mm-hmm. yi ñuy jël di leen utiliser tey bu waa Ousmane Sonko jëloon moto yi jakartaa yooyu yóbbaale ko booy yoroon jakartaa yi nga xam ne man leer na ma ne parce que moi je Saloum mm-hmm. seen jakartaa yooyu ci la liggéeyee di ci dàq dépense waaw bu ñu ko yóbbu woon ñoom après ñoom du ñu perte doublement ah non seulement mën nañ ci jëlee ay gaañu gaañu mais seen outils yi ñuy liggéey dañ koy ñàkk moo tax ma ne la booy Ousmane gars yi ànd ak Ousmane Sonko ñu jub lañ man xam naa am na ay cortège yu mu doon yu mu doon doon bu ñu dàqee booy ba booy bàyyi fa moto yi dañuy jël moto yi yeb ci seen pick-up yi dem ak moom mais nañ booy booy daw nañ euh, moto yi ñu ngi woon foofu bàyyi ko. Malick Gakou am ci ah. fracture aussi. également c'est déplorable à ce niveau là quand quand même laa xaw a tiit un peu ci sécurité quand même Ousmane Sonko parce que Malick Gakou bon je sais pas ban niveau la nekkoon est-ce que bu fekkee ne ci kaw oto bi la nekkoon ça dire que li ko dal ba mu gaañu mënoon na dal Ousmane Sonko mënoon na dal Ousmane Sonko. Mm-hmm. li ko dal ba mu gaañu mënoon na dal Ousmane Sonko ça veut dire que euh, Sonko était tout prêt ci loolu dal Malick Gakou te mhm. loolu nag war nañ ko war nañ ci gën a vigilant mais ta en tout état de cause man aw ma aw ma problème ci sécurité Ousmane Sonko parce que gars yi yàgg nañ xam nañ terrain bi ba muy gën a métti mhm. ah ñuy wàcce ci mbedd mi gars yi di dugg di dóor ay grenade protégé nañ Ousmane Sonko xam nga mais devant la force de l'État à l'époque ah mënuñu woon jàmbaarloog les force de l'ordre yi nga xam ne waaye bu dee ah, bu dee ay parti politique rek lañuy mën ci Ousmane Sonko bëriwul de dañ ci mun bëriwul de. mais li tam est-ce que du indi njàqare ci askan wi bu ñu gisee ay violence commencé di am ci campagne bi te des na quand même parce qu'on parle de vingt à vingt et un de campagne. Ah. donc li commencé dessiné wu nii aussi day tax nit ñu bëri dañuy ragal. waaw ah, moo tax ma ne la état moo war a envoie moo war a Sénégalais du ñu ragal. pour ragal nii dellu ay tamit nag seen gënoon na fi métti sénégalais yi. non non ragal mais ñi am na ñoo xam ne jàpp nañ ni ñoom mbir yi seen yoon nekk si tey xeex am. gaañu gaañu am fa ñeneen ak ñeneen parce que li ñu gis démb li fa am ci ay yàqu-yàqu ak ñi nga xam ne seen loxo yi dafa dagg ñeneen ak ñeneen loolu aussi c'était à éviter parce que buñ ne campagne électorale ambiance moo tax ñuy wax campagne électorale ku ne ñëw décliner sa feuille de route yi nga xam ni moom nga war a tëral ngir mën a jëm ci jongante yi bu fekkee nga am feuille de route xam nga élection yi mhm. waxoon naa la ko dama koy dama la koy waxaat il des candidats sérieux yu jóg def élection mu am nag ñoo xam ne xam nañ li leen di xaar ci terrain bi xam nañ ne defuñu fi lu convaincre sénégalais yi waxuñu fi lu convaincre sénégalais yi ñu tey bu ñu sañoon. Mhm. élection yi day nekk ci ruube parce que ils ont tout fait pour que élection yi bañ am finalement élection yi am. am na léegi gis nga leen ñoo ñoo ñu ma lay wax ruubekat yooyu. ba tey mhm. ba tey wàccaguñ sur le terrain sax pour mëne une campagne parce que pare wuñ gis nga seen làmmiñ yëpp ci médias yi la ñuy dem di wax. mais gis nga pare gis nga les candidats sérieux ñu ngi ci terrain bi di def seen campagne. Mm-hmm. am seen programme di dem di gis seen militant moo xam mu bari moo xam mu néew mais ñu ngi dem ci terrain bi di def seen campagne léegi nag mu am benn groupe boo xam ne ñoom ci seen bopp dañoo am problème ci seen biir avant ñuy dem campagne dañoo am problème ci seen biir. Ah waaw ba pare. deuxième chose mooy fan lañ jëm bu ñu jógee pour dem campagne fan lañ jëm ak bu ñu demee gan la ñuy wax. Ah, lan la ñuy wax askan wi ak askan yow tamit nag tu sais les sénégalais tu sais les sénégalais <laughs> yi léegi tardé la suñ seen bopp ci yenn détails yi de. am na fi ñoo xam ne bu ñu romboon tey ci mbedd mi nit ñi topp leen mais am na fi ñoo xam ne tey mun nañ xëy suba ba ngoon di romb ci mbedd mi kenn du leen faale parce que sénégalais sénégalais yi. Euh, ci diggante deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre les sénégalais ont appris énormément de choses sur les gens tey profil profil bu nekk homme politique sénégalais bi am na nu mu la jàppee am fu mu la teg toog jàpp njàmburam c'est simple ñoom nag comme ñoom seen seul seen seul fi mu nekk ni activité mooy dem ci médias yi di wax ñu bàyyi leen nag loolu am nañ ci droit comme li ñuy wax la liberté d'expression mais ku weddi rek defal def bi nag mooy wàccal ci terrain bi léegi ñu xam kan mooy kam ci campagne lañ nekk. Mhm. mais c'est très simple. hôtel méga meeting nga dem sur le terrain c'est très simple les gens vont juger mais je suis désolé depuis que campagne bi bi mu commencé tu as l'impression que y un seul parti y un seul candidat. ah pourtant yeneen parti ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kii de. ñu ngi lan campagne de ñu ngi lan. ñu campagne fan. ah xanaa ci Dakar wala. yow fii ngay xëy suba ba ngoon di xool programme yeneen parti doo ko am. waaye ma waaye Mariette nag am na yoo xam ne bul nax sa bopp nag bëgg bëgg bëgg bëgg a équilibré ba bëgg bëgg a yemale ba di yemale lu yemut ah ñun ñëpp bu ñu sañoon tey yeneen partie dañuy gis seen programme di gis seen activité di ko jàllale parce que loolu ñu fi tax a toog. Mm-hmm. Euh, des fois ma man damay jóg di dox ci mbedd mi di wër sax beneen parti bu am activité mais doo leen gis ñoom daal yaakamti nañ dem fenn dem ci benn ruq taxaw fa woo médias yi wax lu leen neex ñoom dañoo yaakaar ne la campagne se passe au niveau des médias mais xëy na ak ni nga xamante ni tey ku mel ni sàmm sa kàddu xëy na euh, li daloon Bougane moo tax mënuñu woon tamit continuer seen ay activité ah, tey Bougane bàyyi nañ ko Bougane génn na waaw xëy na ñoom tey dinañ